jaarale développement réewum Sénégal ci tabax ay gox-goxaan yu am doole mën a sukkandiku ci seen potentialité ngir mën a tabax ay gox yu naat moo yàgg doon mbébétu politique décentralisation bu réew mi ngir loole mën a antu collectivité territoriale yu Sénégal ubbil seen buntu président conseil communaux yu Maroc. li ñu bëgg mooy ñuy weccoo xalaat ñuy weccoo gis-gis ñuy weccoo ay expérience diggante li nga xam ne moom la ñuy def euh, Maroc ak li ñuy def euh, euh, Sénégal. réewum Sénégal la bëgg a jaare ci bile assise bu mu sëkk ak royaume chérifien bi ngir mën a tabax développement wu gox-goxaan yi. Maroc dafa nekk dëkk bu nga xam ne décentralisation dafa dox Sénégal aussi nekk dëkk bu nga xam ne décentralisation dafa dox loolu nag bu amee c'est parce que euh, le roi du Maroc Mohamed VI que Dieu l'assiste et son excellence le président Macky Sall. dañu dañu dañu dañu gëm décentralisation. ci prox ndoll boobee mbootaay bu ëmb maire yu Sénégal ak bu ëmb président conseil communaux yu Maroc fasante kóllëre ngir gën a mën a rataxal diggante Sénégal ak Maroc. nañu taxal comité de suivi comité de suivi bu nga xam ne accords yooyu bu amee ñoom daañ ko topp taxal aussi comité de suivi bu nga xam ne convention bi liñ ci xaatin daañu daañu ko topp loolu nag direction coopération bi nga xam ne day soog a bees. président Macky Sall créé ko ci biir ministère des collectivités territoriales xam na ñu am na liggéey ci wàll woowu nga xam ne moo dox diggante ñaari bi doole gi nga xam ne ni moom la ñuy jox gox goxaan yi ñu koy woowee décentralisation doon lu am solo ci doxalinu réew mi ndax mën nañ cee sukkandiku ngir mën a sukkali suñu koom.